Yeah. sëñ Fallou bi xam ne moo nekk ci Patte d'Oie nga gis mbooloo mi ni ñu génnee tey mu jar ñu bàyyi yitte yi lépp ngir teew tey ki nga xam ne moo ñu defal lépp lu ñu am si àdduna ki nga xam ne moo ñu defal loo xam ne suñuy wejur mënuñu ko kenn mënuñu ko ba tax na ñu bàyyi liggéey yëpp ànd ak mbooloo mi yéen a gis soxna yi ñu ngi suñu ginnaaw ñu daal di dox ndànk-ndànk rek daal di jëm si kër sëñ Fallou bi di santawaat Serigne Touba bu baax a baax ba nga gis teewaayu mbooloo mi ak suñu jëwriñ ñu ngi leen di seer ba leen wax ban yëg-yëg ngeen am tey si bis bi waaw ah, aousbillah bismillah inna wali yàlla xanaa di sant yàlla rek ak Serigne Touba waaw moom mi waral moom mi waral bis a daal xam nga rek waaw ndax ku tedd gi moom moo waral lii yëpp waaw ndax ah, xam nga soo gisee maam nit ñi génn nii di di à grâce de Serigne Touba parce que parce lii fépp la boo demee ba États-Unis ñu ngi koy def Bamba Day nga dem feneen feneen ñu ngi koy Bamba Day rawatina suñu réew mi rawatina suñu réew mii di di Sénégal waaw kon nag liñ kii nii rek mooy sant yàlla ak Serigne Touba daal loolu daal lañ ci yëg-yëg boobu lañ ci oh. oh. ñu ngi leen di siyaar baax a baax bu mel ni tey ñu del delluwaat si bis bi tey di onzième édition sant Serigne Touba nga bokk si comité d'organisation bi ban yëg-yëg nga am tey si bis bi xanaa jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba sant santaat rek ndax sëñ bi kenn du moom sëñ bi moom ñëpp ko war a sant ndax moom moo dox si géej gi moo moo dem si géej gi jul si géej gi def moom daal maanaam ñoo dëggal moom rek moom rek cee moom rek ma cee sant moom nag kenn du moom li mu def Sénégal li mu def si àdduna jërëjëf àdduna wërgal képp kon nag ñëpp ko a sant àdduna wërgal képp mais boo xoolee lii àdduna bépp koy defandoo muy Amérique muy France muy Italie muy Espagne muy Maroc muy Dakar Sénégal bi Dakar Touba Linguère Fatick jërëjëf borom ñëpp ko defandoo même même même ni ñu koy defee kon nag tey day bis boo xamante ni ak dolliku la ci bis bi ban ngeen am tey waaw dañuy sant seriñ Touba bu wér ba bare di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba am nañ contentement bu baax a baax a baax parce que li ñuy def nii boo xoolee xam ne xol la xale yi di demee yëg-yëg la ñuy demee ak njàmbaar la ñuy demee parce que ku tedd gi moo ko waral te moo ñu ko jaral tamit jërëjëf yëg-yëg nga am tey si bis bi waaw waaw béeg rek béeg rek barki borom Touba toll ni moom ñëpp a béeg ñëpp waaw kontaan nañ trop sëriñ bi li ñu ko defal rek weesu na loolu parce que li mu ñu defal mënuñu ko koo fay tey ji li ñuy def ni mën naa lu tuuti la lu tuutee tuuti la waaw saa su ne daal la ñuy saxoo di wax jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Ibrahima Fall waaw bu du woon ak moom tey leneen la ñuy wax waa tey moo fi saxal lislaam ngi lay siyaar baax a baax ban yëg-yëg nga am si bis bi tey waaw ñu sant ci Tuubaa rek waaw daa Mbàkke lépp moom la waaw santaat ko rek waaw leneen lu waay def lu dul sant daa Mbàkke daa ami jot waaw leneen waruñu lu dul sant ko jaajëf jaajëf de jaajëf ñu leen siyaar baax a baax yëg-yëg bi yëg-yëg jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Thank you. lañ bu sëñ Touba soxlaa keneen ku soxla day ñàkk moo tax tey sax ñëpp bàyyi lépp lépp di mu sagal bis bi ku ne ci àdduna ba nga xam ne teel a bis journée jërëjëfati sëriñ Touba saa su nekk boo nekk sa kaw la sax dee ko wax boo doxul kër sa kaw la dee nga war a wax jërëjëfe sëriñ Touba point loolu la lay nuyu bu baax a baax di leen siyaar bu baax a baax a baax ban yëg am tey si bés bi. ah tey moom kontaan rek wax fa dëgg yàlla kontaan ki xamuñu fu mu commencé mu yem barki seriñ Touba lii dara dàq ko ci àdduna lii moom dara dàqu ko waaw di ñaan taw féex rek muy gën di yokk rek ñu koy gën di fekke ñun ñëpp kan bana manqué rek dara jël seewu Touba seen réaction si bés bi waaw mbégte rek sant ku tedd ki bu baax kontaan nañ trop ci yàlla bi mu ñu boolee ñu liggéeyal Serigne Touba bég nañ ci lool waaye <laughs> jaajëf ban yëg-yëg ngeen am si bés bi tey ah wax dëgg yàlla day lii dafay wer na war wane ne Serigne Touba moo fi nekk wallaay asim keneen ku du Serigne Touba nekkoo ñun gamuñu kenn yaakaaruñ kenn bëgguñu kenn ku du Serigne Touba ñu ngi ñaan si barkeb Cheikh Ahmadou Bamba mi ñu yaakaar réew mi di réewum Sénégal yàlla na fi sa borom soo tey xéewal si barkeb Serigne Touba kontaan noonu trop kontaan noonu trop jaa ngeen rek moo ñu ñor bu ñu amee dara lu ñuy def si moom dañuy kontaan ba duñ ko sax mën a gëmee waaw sant yàlla daal barki alxuraanul karim ndax lu dul bamba ñoruñu yor wàllu hygiène bi di toppatoo mbooloo mi ban yëg ngeen am tamit si bés bi tey waaw bëgg rek war na Serigne Touba amuñu lu dul ku tedd gi amul lu ñu ko mën a fay lu dul jërëjëfe sëriñ Touba ñu war na Serigne Touba bëgguñu dara lu dul ku tedd gi tey mënoo ko am ay milliards mënoo am dara ba sand ko lu dul nga xam xam ne li fi ne moom moo ko def parce que mande képp moo ko taxoon a ñëw waaw irham jameel waraa la wax nag bàyyul kenn kon kenn ku si nekk cant gi war na la waaw di wax jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bisimilah mu mel ne tamit ñu ngi taxaw ak ñenn si daara yi nga xam ne teew nañ fi kenn si ñoom di jëriñ ma faa defal bisri ànd ak mbooloo mi tey si sant Serigne Touba ba ñu yëg-yëg ngeen am tey si teewaay si bis bi waaw asalaamaaleykum ñu ngi siyaar mbokki taalibe yëpp nuyu ñëpp di ñaanal ki fi nekkal Cheikhul Khadim a Cheikh Mouhamadou Moutakha yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko gannaaw lool nag moom kàddu yi moom ni ko ñëpp gisee rek noonee lañ koy waxee muy bisu cant bis boo xam ne journée mondiale la ñu ciy sargal Cheikhul Khadim bis bi nag dafa doon bis boo xamante ni que maanaam yaatu na na ci gox yëpp fépp foo dem rek ñu ngi koy màggal di sant Cheikhul Khadim ñi ngi sant bu baax a baax a baax nag bi ñu yàlla mayee kattan ak tawféex ba ñu fekke waat ko ñi ngi ñaanal mboolem ko fi teew lépp loo xam ne sax aajo la yàlla na ko sunu borom saafara ci barke Cheikhul Khadim ñi ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp bu baax a baax jërë ngeen jëf. am tey sant sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ñun daf ñoom moom avant tout e ngoy lii moom lu ñëpp di war a fekk woon la ndax lii dafa neex dafa rëy ndaxte sant sëñ Tuubaa rek taw féex la waaw ndaxte moom wax dëgg yàlla li foo xoolee ay jeunes rek ñoo fi nekk te yàlla buy samp ay jeunes lay samp kon ñun amuñu fay sëñ Tuubaa suñu dund wallahi amuñu fooyam Thank you. jëru ñu ngi lay siyaar baax a baax baax euh, nan nga dundee mbégte tey bisu tey bisimilah bak suñ Tuubaa xanaa di doole sant Cheikh Amadou Bamba rek ndax lii dafa neex sa xol tey bisam bii nii ku di murit defe naa sa xol sedd na si guy guy guy ndax ki tax ki ñu libéré si bu mu jaam nga xam moo ne xat faaka kabla loolu loolu rek dox mbégte la boo xam ne ni tey kenn mënu expliquer fu ñu toll daal xanaa di ko doolee sant bu baax moom Cheikhul Khadim moom mi xam ne yaakaari jaam ñi waaw moom mi xam moo ñu dimbali tey moo ñu dimbali di ñaan yàlla mbokk taalibe yëpp ñu koy yàgg fekkee te di ko tal te ànd ko mbokk taalibe yëpp ñu ngi sant bu baax jërëjëf waay. waaw mu mel ni agsi nañ fii nga xam ne mooy kër sëñ Fallou gi nga xam ne mooy nekk ci Patte mel ni kon nu ñu ko waxee woon rek ñu ngi tàmbalee woon foofu ci Parcelles Assainies unité 6 jàkkaarloog fi nga xam ni mooy kër Serigne Modou euh, Mourtada bi nga xam ne mooy doomi Serigne Touba ñu egg ci fii ci kër Serigne Fallou comme ni ñu ko gisee rek gis Euh, démarche bi nga xam ne def nañ ko yëpp ak fi ñu jaar yëpp ak jërëjëfe Serigne Touba bi nga xam ne mbokk taalib yëpp gën nañ ñëw wuyu si ñi nga xam ne mooy mbooloo mi mu nekk ay image yu doy waar yoo xam ni nga xam ne Serigne Touba dafa nekk ci xolu ñëpp ñi nga xam ne sax bokku ñu si yoon bi tey ñu bëri ñëw nañ ànd ak ñun beeg si fii nga xam ni mooy mooy dalwaay bi kon ñu ngi leen di euh, ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di delaat di santar Serigne Touba bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa